ñëpp mobilisé wu ñu wane Macky Sall que d'accord ñu ci ni mu yoree réew mi ci violence ci torture ci rey ay nit d'accord ñu ci nañu mobiliser ñun ñëpp ndax ñu libéré prisonniers yi. parce que ku xool mobilisation bi xam na sénégalais yi déterminé nañu kon nag gars li avant coup la allah on reste mobilisé parce que combat bi mi ngi suñu kanam il faut nous faut beaucoup d'énergie et encore beaucoup d'autres mobilisations libérer tous les détenus. c'est une exigence aujourd'hui waxtaane wuñ ko ñaanuñ ko saraxuwuñ ko c'est une exigence gars yi dinañ def maintien combat bi dina continuer kon Sénégal le combat continue vive le Sénégal vive le peuple debout libérez les détenus politiques